ëttu baay bu kéegee ëttu baay bu kii ëttu baay bu kéegee ëttu baay bu yow kii nu mu tuddati waaw waaw yow sa waay dama koo gëj a gis de. kooku Mbaye. Mbaye Camara waaw mu ngi fi de. Ah. sama waay ji gëj naa koo mu ngi fi daal ak mën a tëgg. Mbaye Camara naan naan la de. sama waay la nag waay ak ay sama xarit waaye nag sa waay. Hmm. ren jii. lenn moom bëgg naa ko. waaw seen géer googu nekk euh, Sacré Cœur laa xaw ma kii. Nord Foire Nord <laughs> bëgg naa saa bu ngeen di dem di di feesi. ngeen yóbbaale ma daaw da ngeen ma fee ba waaye ren da ngeen ma yóbbu de. tam xarit ji gis nga suñ feesum noo ma. Hmm. daa am lu ma fàttali. mbay danoo fees ba bare mbay jël bu tuddee def ko ci muus. mbàq ya man ko mbay bàyyi fi ma dama ko yóbbu. bu hmm. ko jox aw si mu togg ko. jël jël baax yi uuf nii. Hmm. ci kawam nii. yàlla dogal oto ba am benn soog bu ndaw bu mu def mbëkk. mbuus ma toj. <laughs> rek mbay jàpp ma rek yuux. ah sama dégg ñaaw ah, ñaaw am géwél la dafay ragal de dafa ragal de yow gis nga kii soxna yi nag war na wax taamu cere jin bëgg wax leen ko ñu toog ko parce que soxna yi bu ñu waxut ñoom ñi aay ñu de xamuñu dara surtout nag yow kii nga war a waxal nu mu tëddee ndake dara xamu moo aaye de Ah, ñun ñu ngi ci bëñ comme datee aye ah, ñu ngi ci bëñ waaye nag kenn du fi togg cere jurulu cere nëx naxal la ñuy togg nëx naxal nëx naxal yi waaw eh, eh, eh, fii togguñu fi ay nëx naxal de mo cere baase la ñuy togg baase lan man baas du ma ko lekk sama biir bi daw de du ma ko def war waa ngi ni garaaw ay baas sànq ba tey maa ngi dégg naa nëxal ak baase mais fobeere leen ko waaw mun kii lu ko dal. booy bi dafa yow lu ñuy fobeere yow fii da nga fay gis dara lu fi tax ba ngay fobeere lu fi tax. mais xaayaa ne ku dégg séeréer moo neex a waxal soos leen ko def ci mburu. Hmm. amul ñox eh, eh, eh, bonne <laughs> booy bi gis nga nag yow ku bëgg yàpp nga. yow yaayay changé. naxal naxal ak ni mu diise. Hmm. Ah. ma wax yow yàlla bu mbuum nga tàmb man de sànq ba eh, léegi kenn tigga déggewu li ngeen ñu wan ci tabaski sànq ba tey de yéen a ngi baase ñii di naxal ñii di soos waa ci li ngeen war a wax hmm. waxu leen ko ci julli gi ngeen war a wax waaw ak julli gi laaj julli bisu tam xarit sama ndijaay bukki moo ko daan def di di ko julli jiite man de sama ndijaay benn saalaam ah doo leen wutali ku ñu jiite eh, yow sa ndijaay sa ndijaay bukki dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo kii rek dañ dañ dañ dañ dañ koo bañ a wili pande rek ci seen kanam muy rus mu naan ma jiite waaye la muy jiite baaxul la muy jiite dara baaxut. dara baaxut dara baaxut ñun saa bu jullee déglu rek man a nguuda saa boobu jiitee ba pare man a nguuda dañu àndaan ndànk dem ñu jiita waat ñu feneen. imam Dior suñu xarit la moom ñu jiite ñu. waaw non baax na loolu de baax na ah, imam Dior ay ndijaay rusoo wax loolu yow. ah bu mu ko rusa wax kat benn saar la mën muy ko rusa wax kooku rek ah baax baax na. waaw awa aw xarit naan nañ sebet bi jeexal nañ ko tàkk may naa leen ñaari yoon ndox aw xarit dee leen toppatoo ah mbay kamara xar yoo jox ñaari yoon yoo tam toppatoo ma leen xarit bu ma fi newul yaa fi ne dee leen toppatoo xarit maa ngi def lu ma mën de xarit kay ñoo bëgg lekk rek yow tam xarit bi fooy toggee ren gi waa sama kër yaay sa kër yaayu lan may Camara yow gënoo xam ne sama yaay moom kese moo nekk te mag la baagante bu du ko mën du daaw fa laa toggee tibb fii. awa tam xarit gi fii ngay toggee ci biir kër gi demoo sa kër yaa de. léegi jàppale sama yaay kër ma def daal danga koo fàtte. lan euh, dem am suñu baat xar nag yu baax. ñëw ma jox la nga yóbbu sa kër yaay lu ay mbaax kase nga mu fi ay Mbaye Camara yow Mbaye Camara mun nga wax wax ju bu baax laa la fii. Eh. mun ngaa wan ne tibb bu ma tibb fii baaxul. aw li ngeen di maa ko lekk de aw mbaq rek laa fi gis de. yaa ko lekk ba naa la ko xamal tam xariteen bi fii ngay toggee ci kër gi ma toog fii ci buntuwaay mi di la surveiller. léegi sama yaay nan xool. Mbaye Camara xam la laa bëgg nga xam ko sama ma toggee pare naa ko tibb bu baax yóbbu ko te te doo ba nga toog fii laay toog ci waañ bi. sa yaay wala yow man maa la tax yow. Ah, ah, maa ciy dugg ba mu saf saf. waañ bi li li fi toog yëpp maa koy joxe. waa bañ yegg ja yow dina xam si yaa la takk wala maa la takk waaw loolu yëpp guñ ci waaw yow soo fa bëgg a dee waaw baax na ba ñu yëg ceeg jaam waaw yow sax munoo cere ñu lay anaat nga bànn baadul moom. li ma ci li ma la ci mën a waxal nag mooy bis bisu tam xarit dañuy dem ci buntu waañ wa dañu koy xam moom. ñuy togg li ñuy togg dañ koy gis nii nii. waaw ndax euh, euh, kii xujjam euh, yi. moom moom tabaski moom moo aaye. waaw Habila Habil Habila Habil Habila Habil yow moom yaay Habila Habil yaa ngi may dégg tam xa tabaski moo aaye. waaw gisuñ ñetti gàtt lañ rey te gisuñu yàpp. Eh, eh, eh, dafal ndànk nag saa yi saa yi yàpp yu matoon na nag. matoon na sëkk nag matul bàyyi bàyyi gis nga yaw nga yow xamalan moo gën a naqar ci yow ngiraan. matoon na buñ génnee ci mbedd mi nga ni lim yàpp yu xamoo fu ko xujja dugal suñ duggee ci biir kër gi nga bëgg ko faral. lenn kay moo lenn kay la def luñ ko santul mooy dañ ko wax def ci laalo nguy mu def ci laalo ñax. yaa pag laalu nguy cere ji cere jam cere am laalo di saa ay man ma lay wax ci tabaski ngay dem ci cere waaw may dañ ko loolu la def erreur boobu la def loolu yomb nañ koo baal ñun laalo nguy lañ ko wax mu def ci laalo ñax ñun mën nañ koo baal lool jiraan mi lu ko dal man may wax waxi tabaski mooy wax waxi laalo nguy ak laalo yaa gën a dégg li ma la wax ngay tay sa jabar laa la wax fi aayee ma ne ci def ñu mën ko koo baal loolu mën nañ ko koo baal sa jabar laa tabaski kenn gisul yàpp wi yàpp yi lépp la maye xaw ma da koo maye xaw ma da koo saraxe eh, togg ko tibbaate ko bool mu ne mu teg ko ci ëtt bi naan damay tibb sama nijaay ak sama bàjjan ak ku ne mu bëgg koo tibbal mënta ne yaa ngi may dégg waaw waaye moom lan ngeen ñu war a jox dépasse rek laa bëgg a xam man ñaata daal tabaski gi de moom neexoon na neexoon na de gi de moom neexoon na ah, tojoot ah, toj euh, nu ñuy def hmm. tamxarit gi mhm. yàlla dogal na am na ñaari nag yu ñuy fees chaque weer at mu ne ci ginnaaw fi ñaari nag waaw te nag wi buñ ko feesee ñoo moom baat ya baat ya waaw te man la mbay kamara bukki ak ak ngiraan bi non bukki du dem ñetti pàcc yëpp fii lay jëm si baal yóbbu bukki rek ndax moom pàcc mu ñëw ci kër gi yaa ngi may dégg bu ñëwee ñoom dinañ ñu fay vingt mille ñu jox mbay kamara cinq mille am ñett junni ñu indil leen ko. indil ko seen dépense. ku ne junni foofa toj. ñett junni daal. maanaam daal comme dab rek. comme dab ñetti junni. yéen ku nekk junni. ah ma ko de. man de sama junni xeebu ma ko. Mm. waaye jàppal ni tam xarit boo ma indilee junni. laaj ma looy reere. waaw. <laughs> lan laay reere. lan reere. cere meew. ah. lii ku ko réew moo bañ. kii kii kii kii. waaw ndaje mi yemuma. ndaje war nga ko yar de. kii cere meew nees koy reere. eh eh Ngouda. Ngouda. te ngaa toog. lan la toogal. eh ndawal duuf na de. waaw waaye paaka ñëwatul. <laughs> man ngay waxal de. ooy. man mm-hmm. xaj naa ci de. de xam naa ne moom. sama junni de bu yegsee ci man. Mm-hmm. la ci defal ñambaan buy bu far de. Ah, eh. sànni la ci tuuti <laughs> ah <laughs> am am caf. moom nag kaay de jar teree de moom jar teree de jarul ngay kek kek naan ñambaanu buy man sama biir daa daw sama biir dawul de moom am na lu ko doy. moom am na lu ko doy. ma ne jarul ñuus fii laa koy waxee li ma koy wax fii laa koy waxee moom leen rek ko leen rek ko të fóot ak paase xoolal. jàmbaar na buy munul fóot ak paase biiram dinaw. <laughs> biiru tañ da du la sonal jàmbaar na buy. toogal rek.